dëgg yàlla wone ngeen waxuma la yéene ju ngeen am ci daara waaye cofeel gu ngeen am ci suñu jëmm ju doye di ji ak kóolute gu ngeen am ci ñun ak yaakaar ju ngeen am ci li ñuy fexe di ñaan mu sotti kon loolu moom man ab sag laa ci am ak yëkkatiku laa ci am ndax day liñ ci war rek lañuy def waaye yéen yéen a ngi ciy wone dëgg dëgg dëgg dëgg seen yéene ko defee ñu fàttaliwaat numéro bi rek 77 634 06 68 suñu waxtaanu tey bala ñu cee ñëw dañuy euh, def benn taxaw seetlu rek ci kàddu yi nga xam ne Barthélemy Diaz mi ngi koy yëkkati ci euh, Jeux olympiques yi nga wax ne dañ ko fiy waj fas yéene def su ma juumul sax di seegul moos deux mille vingt six dafa mel na loolu laa dégg kon desaat na mu mel na ñi koy organiser état bi ak ñi ñu ko seqal dañu cee associé wul mairie de Dakar loolu nag su fekkee ne am na te ñu koy organiser Dakar moom dama naan buum dellu na ca booy booy ba rek wax dëgg yàlla ñu ngi jalgati lees wër te jalgati ndax nag euh, mairie de Dakar dafa am rôle boo xam ne bii. bu essentiel boo xam ne bii mëneesu la def ci Dakar loo xam ne associé wuñu ko ca loola di jag kon nag su fekkee ne dafa am ay raison quelconque yu ñuy invoké rawatina ay raison politique ba tax ñu bëgg ko caa seppi loola du rafet du jekk waaye nag waaye nag waaye nag Barthélemy yaakaar naa ne wër na bàyyi xel ne moom dana bari combat yu muy mëneeti wéet ca lool lool dana ca wéet ndax nag moom du yàpp du jën Barthélemy du yàpp jën man de seedelaw naa suñu borom tabaraka wa taala mësuma am confiance ci moom du benn jamono nag du jamono bi muy nekk opposition bi muy duggal ci biir ba muy génnaat mësuma am ci moom confiance loolu la yàlla ma sa dogal parce que man xëy na awma baatin waaye na am naa flair parce que ay wax dama koy déglu di xool Barthélemy mi musta wax lu cohérent moom lii waa ji doon wax naan xale ba waxam cohérent wul moom mii moo cohérent ndax dégg ngeen ko fi sax ginnaaw bi mu xeexee ab Wade wëlbatiku walbatiku di ne dañ koo tooñoon kon kii ëpp naa àndal moom mii nga xam ni moo fi taxawoon moom Barthélemy ne bi nga xamee ne Khalifa Sall dafa doon woo da ko woo ne ko Macky Sall day ñëw jaale si ma sama yaay kaay teew ngir cër bu ko xalifa jox ak taxawaay bu mu war a am ci xalifa mu gàntal ko ndax jéppi gu mu jéppi woon Macky Sall mere ko mu ne ko ñëwuma ginnaaw ba toog na ci Pape Ngeen Njaay mu ne ko ndax bu loo Macky woon mu ne ko loola du am nangam nangam di xaatar xaatar xaatar xaatar loola nag suñu mujjee fii tey ji ñu dem ba ca biir la nga leen arrangé woon xëy na arrangé tu leen ko ba tax ñu lay doyee dal walla ñu lay def yeneen kooku sa combat bopp lay tey yaakaar naa ne nga ci wéet lool da nga ci wéet lool kon nag demal nga xeex sab xeex te bul sonal nit ñi di dem ci plateau yi di def ay guerre médiatique loo ci góobe rek gar ko bu ko defee mbokk yi ñu ñëw ci suñu tomb bi nga xam ni moo jëm ci coow li ngeen fi déggoon ci ginnaaw ñuy wax ay milliards yu ñu wax ni dafa jóge Qatar dugg senegal ñu tudd ca usmaan Sonko tudd ca dëkk bii ñuy wax Touba loola nag benn euh, journal bu ñuy wax Canard enchaîné moom moo ko waxoon lañu ca wax it ku dugg ci internet liir passage ba nga xam ni bii ca la tudd murit yi extrait bi mooy lii mu ne l'opposant qui se réclame de l'islam entre parenthèses locale l'islam local murit est également partisan de la peine de mort et de la criminalisation de l'homosexualité, ce qui, entre autres, lui vaut l'appui des frères musulmans. En mars 2021, après une première arrestation de Sonko, le leader frériste égyptien Saber Machhour appelé à le soutenir sans réserve. L'argent du Qatar, principal bailleur de fonds des frères musulmans, inonde le Sénégal pour convaincre les mourides de soutenir Ousmane Sonko loolu nag wax bu mujj boobu dafa ne souligne un un un diplomate marocain alors que plusieurs sources françaises susurrent la même analyse kon ñu firi ko gàtt gàtt ci wolof dafa ne ki nga xam ni mooy opposant Ousmane Sonko nee na moom dafa woote woo l'islam loolu wér naag wérul des na beneen wax la di ah, woote woo it yoonu murit nee na moom moom itam nee na partisan la ci peine de mort ak criminalisation homosexualité maanaam wàllu góor jigéen ñu ñu daan leen daan boo xam ne bii dañ koy def crime. nee na loolu moo waral frères musulmans yi benn mbooloo mu nekk ci bitim réew la ci deux mille vingt et nee na ñoom jaarale ko ci seen benn mbokk mi ñuy wax Saber Machhoud dañu ne nañ ko jàppale sans réserve maanaam am buñ ci bàyyi dara ci jàppale giñ koy jàppale. mu ne looloo tax xaalis bi nga xam ni mooy xaalisu Qatar Qatar moo doon financé frère musulman <coughs> nee na boobu mi ngi ci biir senegal fees fi dell walla ngaan nee na ngir soutenir murid yi pour ñu jàppale usman Sonko bañ ca tuddee douze milliards la ñu wax ñi nga xam ni nag ñoom ñoo waral may wax-wax ji tey jii mooy ñi nga xam ni diirub fukki at ak juróom yi paase wala lu ko xaw a ëpp lépp loo xam ne lii nit wax na ko jëm ko ci yoonu mu murit muy safaan muy yiw yiw léeg-léeg ngay wax jublu caw yiw ñu jàppe ko safaan ñoom ñooñu ñoo daan jóg di saaga nit ñi loolu ñu wax nekk ay répondeur automatique am na ci ku ma mës a jël sama tur dugal ko ci Facebook waaye lam ko xam na ko am na ci koo xam ne kii defe naa ñaari yoon tontu na ma waaye yaakaar naa ne du ñett moom itam ndax xam na ma xam ñu ngi jéggalu euh, nodd wi moo dikkoon ci téléphone bi kon ma ne comme moom xam na ma xam ñooñu ak ñeneen ñu ni mel ay gune yoo xam ni indiscipline bi foo ko takk weesu na ko ñuy saaga nit ñi waaye ku saaga sa ndey ak sa baay saaga say bokki jege ñaale keneen koo saaga yaakaar naa ni waru ko metti xaadimu rasul du ko ñuy défendre ay saaga moom ay argument lañ koy défendre man yaakaar naa ni coow li li muy bari bari bari bala ngaa wut tey ci biir Sénégal ku ma dàq wattu bind yi xaadimu rasul bind li ma ci wattu yaakaar naa ne boo ci gisee sama morom dootul bala benn ñaar ñett dootoo na ñeent ak leneen ak leneen ak leneen yoo xam ne plateau bii du place am pour ma ko ciy wax kon cëfër-cëfër jéeg reewande jéeg cëppi cëpp ji xanaa sori ma moo tax tey nag lañ leen di xaar kon booba ba léegi maa ngi déglu maa ngi déglu yéen polémique ak saaga ngeen tàmm moo tax mënu leen saa yu mbir dikkee ngeen jël seen intelligence jëfandikoo ko pour traité ay mbir yoo xam ne yu jar a parce que wax jii ñu wax lu wax ju ndaw te tudd ci douze milliards de francs waroon ngeen a mën a am nag mat ak fulla gu toll na lii ngeen waslu ci àq waaye du ngeen ko mën parce que argument yi ngeen di jëfandikoo ngeen amul intelligence bi mu laaj amuleen ko clairvoyance bi mu laaj amuleen ko yéen seen métier mooy def aw ñaawteef seeni moroomi baay seeni moroomi ndey wala ñu leen mag lu mu gàtt-gàtt seeni nijaay moom daal ku ci ne ñoxor njaay ngeen saaga ko jéem ko toroxal mënul nekk am na ñoo xam ne nag ñoom wéy nañ ci torox weesu na su fekkoon ne yéen da ngeen di défendre xaadimu rasul ak Touba ak lu mu laal ngeen koy defendre défense boo xam ne bii bu objectif la bu xam ne bii bu dëggu bu tegu ci yoon bii moom du ngeen ko bàyyi mu jàll lii dooy naw aw sas doy na sëkk aw sas ndax wax ju rëy ji kuñ ko tuumaal teg ko ci sab der ka ca bokk nga xam ne moo daan gemb waru naa gemb tey waroon ngeen gembu man ku mel na man xam naa ne wax ji amul cëslaay maa ko xamaatoo te xam naa it fa ma jële samay source ba mu leer ci sama bopp ba mu leer nañ ci sama bopp parce que wax ji yi ñu tudd ci Ousmane Sonko moom li ko jëkk a seetal moom Ousmane Sonko mooy su fekkoon ne loola wéer na moom ay noonam jël nañ ko bu yàgg def ko argument loolu moom lu ma leer la loolu lu ma leer la yéen nag su fekkoon da di ay nit lu mu gàtt-gàtt-gàtt lii jóg ngeen tontu ci def ci ay gëstu waaye mu jaraloon leen tey jii ngeen porter plainte kanaar déchaîné xaw ma kanaar enchaîné mu jaral leen ko parce que nag combat combat rek la addina fi mu toll loolu la laaj parce que nag canard enchaîné moom du ko ñuy jël ay cours ak i yat ak i kerwaas di ko yóbbu ci ginnaaw di dóor déedéet déedéet la ngeen di mën mooy jàpp ngeen ne offensé na leen ngeen porté ko plainte à l'échelle nationale et internationale loolu moo doon li valable te lii jaadu woon na nag ñu tontu ko ci man nag du ma porte parole yoonu murit du ma baat bu am ci solo ci yoonu murit du ma ci kenn koo xam ne kii maa cay jóg di ca tontu boobu moom du ma ci wax waaye yéen nag moom faaw ma joxar bi leen baaraam parce que dafa jot ngeen nit ñi xam ne du ngeen lenn lu dul seeni mercenaire bopp yoo xam ni da ngeen di wutal seen bopp tur mais yéen yoonu murit ñoru leen xaadimu rasul ñoru leen amu leen yar amu leen teggin su fekkoon ne nit ñu normal ngeen lii dana leen metti nim ma metti ay guddi ma tëdd di ko xalaat waaye jóg di gëstu ji ba am firnde ci ne wax ji dara amu ci cëslaay ñetti question dong doy na ci ñi wax ne xaalis dugg na xanaa am nañu firnde firnde kay benn bi mooy kan lañu jox xaalis bi ci ban compte la dugg ana boo këyit wuy wane transaction bi parce que mbir boo ci amul ñett yooyu amuloo xamoo ki joxe xamuloo kim ko jox xamuloo ci ban compte la ko dex amuloo firnde yooyu soo waxee dangaa wax lu la neex foofu doy na yem sëkk ak barke te loolu waroon ngeen a mën a am argument yu toll noonu mën koo teg sur la table mais yéen sëñ Tuubaa ñoru leen seen jëmm yi képp moo leen ñor képp moo leen ñor amu leen beneen soxla bu dul daal ku wax ngeen taxaw di ko tifaare tifaare yi nag ndokk ba ngeen tàmbalee ci seen ndey yeeg seen baay yi ba noppi soo ko génn di saaga nit ñi kon su boobaa dootul safee argument yi nag lu jóg nga tontu ci déedéet tontu ngeen lu ko gën a tuuti tontu ngeen fi ku ko gën a tuuti saaga ngeen fi ay nit kon lii tontu leen ci il est temps ñu joxar bi leen baaraam comme da ngeen a rëyu làmmiñ di wax rek wax leen ci lii lii lu jara wax la Sëriñ Tuubaa nag moom dafa la utul ku ko défendre wutul ku ko layyil ndax li mu def moom dafa mel na jantub njolloor ñëpp a ngi ciy teg seen bët jàppoon na njàmburam yar fu yar tàmbalee fa la tàmbalee ba fa mu yem am na sutura am na teggin ragal na yàlla am nay kersa lépp lu ñuy wax bañ na ko ba moom loolu rootuwaay la woon ci jikko yu rafet yooyu ci jikko yu rafet yooyu mais yéen image bi ngeen di wane mooy vous n'avez rien à voir avec Serigne Touba dara amu leen parce que kuy saaga bokkoo ci ñemewu leen woon moos xanaa sëñ tubaa di dund ngeen jël yat di door nit ñi wala ngeen di saaga nit ñi wala ngeen di bundu xataal nit ñi déedéet loolu yaakaaruma ko bu fi nekkoon yii di am dootul am du am moos bay dootul am sax laa wax kon ñu ngi leen di xaar apporter de réponses tontu leen ci lii ne weng wengeeral tontu leen ci on vous attend asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.